طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم نحييكم مجددا من مدرج مطار نواكشوط الدولي التونسي من الجناح الرئاسي تحديدا حيث يظهر في الخلف وصول الطائرة التي تقل رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش و في مقدمة مستقبله معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود محاطا بكبار معاونيه من أعضاء الحكومة رئيس الحكومة المغربية وصل هذه اللحظات ضمن الوفود الرئاسية من رؤساء حكومات ورؤساء دول وبعثات جاءت من أجل حضور الحدث الكبير الذي سيقام بعد السوايع من الآن وهو تنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني لمأمور جمهورية رئاسية ثانية رئيس الحكومة المغربية هذه اللحظات يصافح أعضاء الحكومة وزير العدل وزير الشؤون الخارجية وزير الدفاع ووزير الداخلية والوزير الأمين العام للحكومة وهو يدخل الآن إلى جناح الشرف هذه اللحظات يتقدم رويدا ليسلم على أعضاء البعثة المغربية التي جاءت استقباله في طليعتها السفير المغربي المعتمد في نواكشوط روابط تاريخية كبيرة وضاربة في القدم تربط موريتانيا بالمملكة المغربية الشقيقة ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تربط البلدين الشقيقين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية هذه اللحظات الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود يستقبل ضيف موريتانيا وضيف فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المغربية العربية عزيز أخنوش معي لتغطية هذا الحدث هنا الزملاء من اللغات الوطنية إليك الزميلة داودة شكرا عبد الودود bandira ɓe yeɓoɓe yaw hafrirde dowla mauritanie on calminama eɗen ɗo e bowollade diwoje ummatunsi nokshot gam jaɓɓade hono lamɓe jorɓe tawtorede ko yowiti e pilgal horeje leydi mouhamadou wul cheikh al gasani eɗen gandi joni yettiɗo joni ɗo e boollaɗi diwaji um tumsi ko gardiɗo jagorɗe leydi marok o woni abdoul asis أخنوش وقيم يتلا جبيمو وقردي دي جاغود ليد موريتاني محمد ولي بلال مسعود وندي دي جاغود قال خلفنا دو جدا شا قال ليدي وندي دي جاغود قال خلفنا دو جدا اندر ليدي وندي دي جاغود قال خلفنا دو كو يويتي اندين كليدي دي جاغود قال ديسنو دوم تو قال لامرغو eden gandi leydi marok e leydi mauritanie ko jokkondiral moƴƴal ɓoyngal hakkunde leyɗele ɗe ɗiɗi e nder hen kanko gardiɗo jagorɗe leydi marok woni abdoullah abdoulaziz akhnous wawi kadi ɓennude ɗum to suudu teddugal woni salon d'honneur gam yewtidde gardiɗe jagorde leydi mauritanie on woni mouhammed wuli bilali masoud mami tottu musidɗo moon sidi mouhammed diagana fira noon e ɗemgal soninke no wari no wari dawda mamadou fayi ha gara ko yaahemɓe ana kella rey oga keddingiraɓe mare mora beskuyi toxo ari jam wonati xawu a oga keddingiraɓe har sagani gelle hura kampita berake oñi oga hateme a daru yo yiriyulli jama ñimmankuri o halle igari jamani ke noxondi tordeɓe ke noxondi ke dingiradi kuro iga tawene lenki kota ke a gani gelli kota xoorenga gelli humbe gani politique nkaranga kendi kona mare mo har sayi be gani aga yanka ke hura kampite be go halle ani gelli ogatini jamani be gani maroc o taxallemu a tandigi hana ke gani gelli asis العزيز أخ النشا yo a gari kuna kembe gani gelli sandig hanake ira bismillah o sandig hanande o i jama ngai yange mai gelli aga yanka hura kampinta ke no gondi kendi kuna o jamani ke aro marok jamani kani gelli aga kungi naga frontiere begi naga yo kendi gelli kapalle maunga katuno jiri no dome akembe gani muke kurumba ke aziz akhanush ani gelli sere ya aga tagu hakari ke bogati ni ke gani wujuni hilli aro ke no gondi kendi kuna kato daga na gani geli tore a aniya yimme gara ga noqube gani marok bangeke kudo iga katuno masalana iga xitatini iga a kappalemaxu aro axaxu ndo humbe gani gelli gollu kuwartelle ɗo mi yahimɓe jamanu koylinaxa yo ke darsa ke killedi ani gelle axa gari tawe kuuro o jamani ke yimmanke mouhamadou cheikh alhaswane a yimmanka o keɓe wutulenki humɓe ga katta gelli mandake yo aga kurmbaxundini yo investiture keɓe gara jamanu yummankuɓenu gadini tawe kendi keñani axa gara ken xaɓe gani gelli oga koni yaxeɓe jaman kuyilinaxa mauritania ro maroc ani gelli suga magreb ke noxo ñadi i suga afrique gelli ken xennege karenñe axa xuɓe ginaxa kenga katono dumene har sa owa toqo dome owa xiɓe gani gelli ogatini agani gelli babacar namya owa kacinkini axana kato gollum moxonu konnorangani gelli wolho xanne eh, nawari eh, eh, mohamed sidi diagana Euh, comme euh, ni ngeen ko déggee ci euh, pulaar bi ak soninke bi noonu la demee xam ngeen ni ki nga xam ni moom mooy njiitu jëwrin bu réewum Maroc moom moo egsi léegi nii moom moomule di Aziz Hanouch mu egsi léegi nag yi nga xam ni moom moo ko tertu mooy njiitu jëwrin ji Mohamed Bilal Massoud tey jii di benn fan ci weeru août ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent Eh, njiitu eh, réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ñu koy eh, sampaat ci bopp réew Mauritanie mu nekk nag loo xam ni xew-xew bu rëy la démb ba xaaju guddi kilifa yi gan yi ñoo ngi wàcc fii ci aéroport international bu Umtounsy mu mel na kon ji réew réewuma Mauritanie comme ni ñu ko waxee démb rek moom mooy Carrefour bi nga xam ni fala la kilifa yëpp daje ngir rek sargal ki nga xam ni mooy njiitu réewu Mauritanie di Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mu doon nag loo xam ni euh, jàngat yu bëree bëri mën nañ ko ciy jàngat euh, ndaxte sunu xoolee keroog bi nga xamee ni réew réewu Mauritanie samp na démocratie ak léegi euh, dollu na ci juróom-ñetti kilifa yi réew yoo xam ni fal nañ leen fi loolu nag dafa am lu bëri loo xam ni mi ngi koy def mu jëm ci maanaam ay jàngat jëm ci li nga xam ni moom moo jëm ci juróom-ñetti jogante maanaam ci ay élection yoo xam ni amal nañ ko fi mu gañe ko nag ci gañe bu leer ci loo xam ni Euh, kenn dootu ko ndax ndaxte juróom fukk ak juróom benn ak lu toftal ci téeméer boo jël ku fekkee ni nit gañe na ko dafa mel na kon askanam wóolu na ko ngir mu woyal li nga xam ni mooy liggéeyam loolu moo waral tax jii ki nga xam ni moom mooy euh, kii di euh, njiitu jëwriñ bu Maroc egsi fii léegi nii nii fii ci capital bi nga xam ne mooy capitale Nouakchott ci aéroport international Oumtounsy Abdoul Wadoud شكرا شكرا لك شكرا لكل الزملاء المتواجدين هنا وفي قصر المرابطون المرابطون منذ بعض الوقت منذ أمس المرابطون في الميدان من أجل أن تكتمل الصورة للمشاهد الكريم عبر شاشة قناة الموريتانية هكذا كان استقبال معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وتتوالى بعده أيضا استقبال الوفود بعد قليل سيصل وزير الخارجية الإسباني أيضا من بعده سيصل أيضا رئيس الحكومة حكومة النيجر ومن بعده أيضا نائب رئيس جمهورية الكوت ديفوار ثم الرئيس السنغالي إذا نواكشوط تتحول إلى وجهة لكل الرؤساء لكل رؤساء الكثير من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول مهنئة مباركة تشهد هذا اليوم المشهود في تاريخ موريتانيا وهو تنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية تعزيزا لمسارنا الديمقراطي تعزيزا لأمن وطننا تعزيزا لتنمية وخدمة الوطن الغالي على نفس على أنفسنا جميعا وإذا حدث جلل تشهده نواكشوط اليوم نفخر به نعتز به باعتباره إضافة ولبنة جوهرية في مسار تنمية وديمقراطية بلدنا الحبيب يوم مشهور العهود لموريتانيا يوم فيه يتجدد اعتزازنا بوطن بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إن لم يتيم ومن تؤوه دار فيشحد فضلها يكن حيوانا فوقه كل أعجمي هنيئا لموريتانيا اليوم نفخر يفخر الشعب الموريتاني يفخر أبناء هذا الوطن بهذه التجربة الغنية في المسار الديمقراطي نفخر اليوم ونعتز بهذا الحدث الكبير وهو تنصيب فخامة رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية بالتأكيد ستكون مأمورية لتعزيز النماء والبناء والاستقرار لهذا الوطن الغالي على أنفسنا جميعا إذا شاشة قناة الموريتانية ستبقى تجمعنا كلما جد جديد وسيعمل القيمون عليها كما دأبوا دائما على أن تكتمل الصورة للمشاهد على أن ينقل الواقع كما هو وبالتالي هناك فرق ميدانية أوفدتها قناة الموريتانية ترابط هنا في مطار نواكشوط الدولي التونسي وترابط أيضا بقصر المرابطون الذي سيشهد الحدث الكبير بعد ساعات باذن لله بعد بعد سواء معدوده باذن الله سيكون هناك هذا الحدث الكبير وهو حدث تتويج فخامة رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية وبحضور الكثير من القادة العرب والأفارقة الذين بدأوا يتوافدون من يوم أمس على العاصمة نواكشوط حتى يكون هناك جديد أعود بكم مشاهدينا الكرام إلى الاستديوهات المركزية فإلى هناك